ñu jéem a seet Serigne Habib Sy moom maam Dabaax yàlla suñu borom fayal ñu ko. borom ay nu max di. waaw kay. Hmm? baay bi day faykatu lakk la woon moom. Hmm. kooku moom sapeur la woon. waaw mu mel ne asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam wa rahmatullah si. waaleykum salaam wa rahmatullah. Ah, yi ñu ngi sant yàlla bu baax a baax. ci lii nga xamante ne bii boole ngeen ma ci. ma bëgg a yëkkati sama kàddu nag. teg ko rekk ci ni doomu réew mi laa comme yéen ñi toog ci télé bi ak képp ku ñuy déglu ci réew mi ak ci gitim réew di am gàcce lool tey ak naqar ci lii ma gis mu xew ci réew mi te dara du ci dëgg teguñu ko fenn lu dul ci bëgg a faagaagal nit mhm. benn bu jëkk bi

ma bëgg mu delloo ci xelam te xam ni lépp ay jeex te ku ko ni woon dina fi toog 2012 ak léegi mu weddi ko ndax plan bu ne tëral nañ ko ko kon su xalaatoon tuuti dina am yeneen doxalin yi mu def lu dul di tëral ay nit di leen comploter ba ñu yegg si fii tey mës naa ko wax ni ko moom yàgg na booba jóge na ci nguur gi mu nekkoon ñu daje ci benn barab ñu présenté ma ko ma ni ko su fekkee ni yaa ngi gëm sa bopp gëm yàlla bu yàlla ne di nga toog ci réew mi di nga fi toog. waaye boobaak léegi ma di ko suivre amoon yaakaar ci moom ndax ñi ko fi jiitu woon ñëpp ku ci nekk def nga fi dara ba dem waaye ay mag la ñu woon ñu jàppoon ni. ndaw la luy door a yegg juddu après l'indépendance dina yóbbu Sénégal fu ñëpp ne eskay malheureusement tel n'est na pale cas président delloo sil sa xel te nga seet sa entourage yi fi xew bare na te nguuru yàlla rekk a dul jeex bis dina ñëw di nga fi génn ni ci lii wala ci nale mhm. li xew nag tax ne ku ci wax

delloo sil sa xel ñun ànduñoo ak yow ci lii léegi sax réew mi àgg nañu ci sëriñ su waxati sax ñu ni dañu noppi torop waaye dafa ci am ñoo xam ne ay suñu kilifa la ñu mag la ñu wax nañu ba sonn te mag nag ku ko yëgul mu yëg boppam teg loxoom ci dënnam ni mën a diw looloo tax ñoom dañ leen di ñaanal yàlla ñu yàgg fi. amiin waaye ñun ak yow nag. dootuñu noppee ci incha allahu taala. ci gàttanu yàlla ak baaxam. jërëjëf. façon bu ne ñu ngi koy jéem. malheureusement. dégguloo ñu. lii xew nag. li ma ci indi man li ma ci gën a metti. du sax affaire Sonko dëgg la metti na. ak li ñu ko teg ak li ñu ko wax. te li ma jot a dégg yëpp ci média bi. dégg ko ci ay nit dég déglu ko ci ay sources yoo xam ne wóor na ma ni ñii lu ñuy wax xam nañu ci lu leer lépp dañ ko comploté de A à mm-hmm. waaye nag olof Njaay nee na kuy gasal sa noonu pax bu mu xóot. ndax ëllëg ay tax mën nga ca dugg. Hmm. fii lu ne xew na fi. yàlla ni patt rek di seetaan. ñu jàpp ni dafa fàtte déedéet. dafa dënnir lu rek. président delloo sil sa xel. président delloo sil sa xel da nga seetaat sa entourage. Hmm. loolu benn la. Hmm. li ci des ma jëmale ko ci ndaw yi réew mi nga xam ni ñu ngi assemblée nationale ñu teg leen fa. askan bi teg leen fa am ci ñoo xamante ni bi dara ñorul leen ludul. lépp luy kontaan loo président rek ñu nga ca suba ak ngoon guddeeg bëccëg. te bu leen fàtte ni deretu nit ñi lañ leen di faye ngeen koy lekk. dërëm bu ngeen ci lekk billaahi wa yi ëllëg gi ñëw bu ngeen duggee bin baan bàmmeel dinañ la dinañ leen ko laaj. summa la tusalunna yawma idin anin naay. alquran la. Hmm. yéen a leen yàlla ñu si bare bare bokk. Hmm. wala bu ñu ko gëmee yaakaar nañ ni loolu yëpp ay caaxaan la. Hmm.

beneen bi ci topp muy ñi nga xam ni ñoom lañu wax ni ñoo yore affaire justice boo ko dee seet bu ñu waxee dëgg ak bu ñu waxul dëgg dafa mel na ñaari Sénégal a fi am. Mm-hmm. et c'est la vérité. c'est nga xam ni tey jii mooy procureur sama benn wax rek laa koy fàttali mu bàyyi ci xel ak képp koo xam ni dale ko ca ministre de la justice ak ñi topp ci seen gannaaw. yonenté bi dafa waxone bu yàgg ni kat yépp ñett rek lañu ñaar ñett safara lañu ñu jëm rek waay na ngeen bayyi wax joj xel ta xamni yalla du waxantu ndax nit am dëggam ngeen ëpp ko doole ba dëgg ci loolu fexe ba neewal ko doole duggal ko ci kasso yaakaar ni rëcc ngeen xamulen li xaw kon delo ci len sen xel man dama bok ci ni ni gem ni fi ci senegal du ñepp nak am na ci ñoo xam ne dañu intègre am jikko yu baax a baax a baax mm-hmm. ragal yàlla lool te xam ni ëllëg dina taxaw ba tax lu ñu d'accordul wane ni d'accorduñu si waaye am na ñoo xam ni nag lu ñu leen indil rek ñu ànd ceeg moom mm-hmm. def leen ndànk mm-hmm. delloo si leen seen xel delloo si leen seen sago beneen bi ci des moo di le peuple sénégalais ñoom laay waxanteel di di leen di leen di leen massawu coono te di leen wax ni yàlla jeexul ndax dafa amoon waykatu arab bu yàgg bu waxoon ida shaabu yowman araada alxayaata fala budda an yastajiba alqadar fala budda lilleyli an yanjali fala budda lilqaydi an yankasir kon nag yéen le peuple sénégalais man maa ngi ànd ak yéen de tout cœur maa ngi ñaan xale yi nañu jéem a def lépp lu ñu mën a def ba dog mbuumu njaam ji ñu ñu bëgg a takkalaat bees waaye ci façon boo xam ne ñépp dinañu xam ni taxaw nañu def nañu li ñu war a def mm. waaye ma leen di ñaan léeg-léeg nga romb koo xam ni dafa bokk ci sénégalais lam daan ndeysaan dajale ba am otoom mm-hmm. ëpp naa lakk kooku la nañu jëflanteeg ñi ñu war a jëflanteel ba ñu xam ni réew mii santul fay santul sàll santul mbàkke santul si santul ay dara njaay Sénégal njaay lañu wax ñun ñëpp ay doomu senegal lañu ay doomu réew mi lañu bii daal laa ni woon dinaa ci sàlli sama kàddu ñu delloo ci xel lii ëpp na ñaaw na am na ñoo xam ne ku leen woon ci senegal wax leen bii daañu ko weddi te man dama bokkoon ci ngeen baal ma ci ñu contrôle Ablaye Wade rëccu naa ko nag maa ngi koy jéggalu bu baax moom waaw lii daal laa amoon ci lu may wax encore une fois di jéggalu ci kàddu gi la ma ca jublu woon du vexé kenn waaye yi tamit boo dee nit di xam li xew ci réew mi te bokk ci réew mi nga gis loo xam ne mu ngi am te sànni woo ca sa kàddu كن يسله اللهم صل على سيدنا محمد وسلم ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله سي ما شاء الله من هناك ديف كومنتير بو نداو رك واو خنا ريمي سي دافا ام لو ام سولو موم لو مو ديف يفوك سنغالي يخمكو ياغول دارا ديفنا نياري سيمين تي غيناو داف ني وو نانيو داما لين سوخلا ني نكو باخنا كون فان لاني لاي فك مو نما ديدت من ما لين سوخلا كون من ماي نيو فك سي لين macha allah ndax lii ma leen di doyee soxlay réew mi la. Mhm. te fukki bi mu ñëwee toog mu ne fukki at a ngi nii may observé. Mhm. ma gis ngeen di jug di sonn di xeex di taxaw lépp rek ngir état de droit. Mhm. lépp ngir démocratie buñ bañ a salfaañi. ma ne kat seen xeex bi dafa mel ni dangeen ci wéet. weetu leen ci naam. ndax askan baa ngi suivre. waaye dafa baax ñu mel ni ñun. di ñëw nag affiché wu. dëgg la wan ñii di woowee seen bopp tey nitu àdduna que ni kat nag. ah ñun nag am nañ sañ-sañu taxaw ne. dinañ dog buumu njaam mi. affiché wu wanal suñu appartenance bokk ci yéen ànd ak yéen ci xeex bi. bi muy dugg di wax ba léegi. j'ai reçu des tonnes de messages yoo xamante ni ñëpp. naa ma kii mooy sama sëriñ kii mooy sama sëriñ kii mooy sama sëriñ ñoo xamante ni ci bañ rek laa leen xamoon kon macha allah sëñ Habib Sy la mu maam da baax koo xamante ni Sénégal ko ñor koo xamante ni dëgg ko ñor koo xamante ni ni papam bu baax ba baayam bu baax ba doon taxawee mm. bu Sénégal soxlawaat bu askanu Sénégal soxlawaat noonu la nekk